mais balaa loolu fu ngeen tollu ci seen programme bi ngeen yanu boobu ba léegi bëgg ñu dugal ko assemblée muy borom ñaari tur yi. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Chouaïbou ànd sàmm jikko yi. Mhm. ba léegi mi ngi ci lancé bi mu nekkoon te mooy. Mhm. nu fexe nu criminaliser ak ngóor jigéen fii ci réew mi. yéen ci waaw. am na benn jamono nag nee na tekk. waaw ba ñëpp na waaw seen tekkaaral ji lu ko jur. Mhm. am na sax mbokk mu ñu ci daan wax léegi moom ànd sàmm jikko yi ànd sàmm seen kàddu la bokk. waaw maanaam tëj seen làmmiñ rek na pat <laughs> jàpp seen jàmm. a dëgg te fekk jàpp nu njàmbur ñu ngi dox ci suuf. Uh-huh. mais munoo munoo am ay élection am. Mm-hmm. député yi ko war a def. installé ñu sax nga bëgg a acharné waat seen kaw. waaw loolu loolu day niróo. assemblée programme la voilà programme la. foog nga déglu leen ba ñu installé wu. Mm-hmm. teg seen i loi teg seen i yëpp après nga door a indi loi bi. bi ñu leen fàttalee tamit bee passé waxoon nañ ne waa yeewi dalaloon nañu. Mm-hmm. wallu dalaloon nañu. Euh, bokk gis-gis. kadalika mhm. semaine bii ñu génn bennoo bokk yaakaar dalal nañu. waa bennoo waaw waa bennoo xam naa bett nañu bare. ah ok ah, mais ci li ngeen jamono yi lépp waaw seen président groupe parlementaire Omar Youm. Mhm. dalal nañu ginnaaw bi mu yëgee ne kër defoon na benn lettre di ko fàttaliwaat que loi bi dañ ko bëgg a dugal assemblée. Mhm. parce que li ñu lay laaj mooy ndax yéen pare ngeen pour engager wu porte loi bi benn wa illaa bu ñëwee est-ce que pare nga pour nga voter ko. wala itam bu dee am nga ci xalaat. loo ci bëgg a yokk mbaa loo ciy wàññi lan la ci mhm. ah dalal nañ joxe na xalaatam wane nañ ne ñoom gis nañ ne lii daal lu baax la dañoo engagé wu wala dañ ñi rek daañu ko porte lu baax la moom Omar mais bu sañoon nag ñu gën koo yaatal ba député yëpp jot ci société civile bi ñëpp jot ci mais liggéey boobu moom baal nañ ko ko parce que def nañ ko ba pare <laughs> li ci am solo rek mooy ñun li ñu soxla mooy ñoom ñu engagé wu rek même bu ñu mënul porter loi bi yóbbu ko ñu mën ko voter bu ñëwee d'accord te am naa yaakaar lii jot a am akas néew moom bu demee dina jàll. Ah. waaw léegi Pape Djibril moo ci desoon Thierno Alassane Pape Djibril war nañu dajeek moom tey bu ànd ak dogalu yàlla. tey tey tey waaw tey tey. incha allah te moom xam nga bokkoon na ci ñii waxoon ne. dana ko voté incha allah parce que signé woon na ko avant muy dem ci élection yi. Mhm. signé woon na ne bu ñëwee assemblée dina ko jàppale. d'accord léegi nag ndax dina mën a porter loi bi mu yóbbu ko wa illaa bu ñëwee mu voté loolu dinañ ci waxtaan ak moom bu dee am na ci beneen gis-gis tamit mu wax ko. d'accord loolu incha allah bëgg nañ ko yeggale tey tey. Euh, d'accord xam naa Ablaye Diallo bu dee mi ngi ñuy dégg rek mu ñëw taalal ñu euh, xandal gi. incha allah mhm. du ci wàññi dara. Mhm. mais imam ñii nga ma tuddal nag. ci ab déedéet wax dëgg yàlla. léegi nag kon yéen moom am ngeen yaakaar ni moom assemblée bu fa nee day jàll. waaw bii moom gëm naa ne bu demee day jàll ni lettre ci poste. parce que 83 ah. députés rek bu ñu ko amee mu jàll. mais diggante wàllu. ak yeewi ak bokk gis-gis. parce que 83 hmm. yi day taxaw. ak Pape Djibril. waaw ak Pape Djibril encore. Hmm. te biir bennoo gëm naa ne am na ñu fa nekk dañ koy voté. Ah, loolu la ak lu ab day jàll. Ah, parce que vote bi c'est secret. d'accord da ngay dem voté kenn du xam kan la. yéen mbaa saytu ngeen li ngeen di voté lu imam da ngeen cee boole walla kuy laccax kuy def nii ay baaraam. ak ah, yooyu ah déedéet déedéet xam nga a leeral mooy loolu mooy ko efféminé. koo xam ne day wax baat bi leeb. kooku mu mel ni jigéen ñooñu suñu yoon newu ci. ki nga xam ne day dox. di laccax la xaw a daggu loxo. loolu suñu yoon newu ci loolu bind la. Mhm. mais ak nguur jigéen ñépp ko xam daa am ñoo xam ne dañoo gëm góor ak góor takkante di sëy ñun ñoo ñu tax a jóg d'accord mais góor gu xaw a efféminé ay cëram mel ni mel ni cëru jigéen. loolu loolu suñu yoon bu ñu la mënee xelal nag jéem laa corriger nga jubbanti sa doxiin sa waxiin ak yooyu ñu def ko mais loolu taxul a jóg loi bi loi bi li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañu gëm ne góor mën na sëy ak góor. jigéen mën na sëy ak. jigéen jigéen ak ñi leen di financer. Mm-hmm. ak ñi leen di applaudiser ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom duñu góor jigéen mais dañ leen di ñaax pour ñu di ko def. xëy na ñoom. am na luñ ci am mooy bëgg ak mbon mhm. loolu moo ko tax a jóg mhm. waaye li ñu bëgg a gëmloo nit ñi naan woy boo fi gisee nit ku jàdd koñ di damm loxo ñu jàpp dóor la mhm. loi bi loolu lépp daf ko préparé d'accord loi bi ak nguur jigéen la wax mu leer mooy LGBT LGBT nag programme la agenda la boo xam ne ñu gëm ne góor ak góor mën nañoo sëy ba ci ki koy promouvoir ci loi bi la bokk ah ki koy promouvoir ci la bokk ki koy financé ci la bokk d'accord ñi leen di tàccu ci la ñu bokk soo gisee droit de l'homme yi xaw a sonn jaaxle tiit ci ñoom dañoo bokk ci ñiy financé góor jigéen ndax dañoo jàpp ne am nañu droit ci li ñuy def. d'accord di leen jox xaalis te loi bi dafa wax ne mbooleem ñi leen di financer dañuy duggaale ci biir sanction yi. Hmm. léegi nag loolu moo tax ñoom seen combat duñ ko duñ ci mës a déggoo góor jigéen. d'accord duñ ci mës a déggoo ànd sàmm jikko yi. d'accord mhm. baalu boo xam ne parce que nag assemblée bi defe naa ato ko fi desee. waaw lay doon. wala xam nga bu ñu tasee ensemble bi ëllëg ñuy tëggaat ndax seen loi bi dafay continuer nekk wala lii da ngeen koy def pour ñu verrouiller ko déedéet gis nga loi bi boo ko xasee voté hmm. jàll ne léegi xam nga su ëllëgee ku ko bëgg dindi hmm. foog nga voté waat beneen loi pour nga dindi ko ah kon dootu nekk loo xam ne ensemble bi day tas ñu naan dañuy tëggaat loi bi non non moom hmm. su loi bi xasee dugg ba ñu voté ko te incha allah bëgg nañ ba la ñu um koor mu dugg incha allah léegi nag bu ñu ko voté ren ci deux mille vingt trois bii avant deux mille vingt quatre parce que deux mille vingt quatre assemblée bi ragal nañ ne mën na soppeeku. Mhm. mais bu ñu ko xasee voté. Mhm. même bu ñu tasee assemblée bi loi bi day continuer. d' accord lu dul ña fa ñëwaat ñëw ne loi bi ñoom. Mhm. dañ ko bëgg a ñu defar beneen loi pour effacer ko te loolu nag gëm naa ne sénégal yi duñ ko seetaan sonn lii ay at lañ ci sonn de. ba dugal ko ay nit ñëw abrogé loi bi. ah loolu nag gëm naa ne ki koy def mooy bu fekkoon nguur la yor sax nguuram ko du taxaw. du taxaw waaw parce que sénégalais yi duñ nangu lool. souvent day am ay reen yu dëgër. waaw day am reen yu dëgër parce que sénégalais yi ñu bëggul góor jigéen loolu moom lu leer la man gëm naa ne ñi koy def sax bëgguñu ko. la leen ci dugal la rek régler lan la bon xaalis la santage la lan la mais góor jigéen jàpp ma ne nit ku baax dana ko bëgg. Mhm. doon ko mbaa nga gis ku koy doon nga di ko ci topp man dama yaakaar ne loolu am na leneen lu ñu war a xool lan moo leen ci dugal est-ce que xaalis bi d'accord est-ce que chantage yi ñu leen def mën nañ koo dékku léegi. Mhm. mais ñëpp xam nañ ne sénégalais bugg ko. dama gis ku mel ni Assane Diouf jógoon na fi attaqué leen mais ba léegi gisuma ngeen def benn réaction te pourtant kàddoom du kàddu mi. mu ni yéen bu ngeen kii moom du ko voté parce que yéen nangam. lu tax waxu leen ci ba léegi. Assane Diouf waaw xam nga Assane Diouf moom ñun amuñoo ak moom affaire daa am ñoo xam ni sooy boo nekkee ci. mais ay influenceur lañu imam dañuy influencer. waaw mais xam nga ne Assane Diouf loi bi fi ñu ko soxlaa ñun. Hmm. nekk fa. loolu bu ko ñeneen waxoon ñoo xam ne ña nga assemblée. Hmm. ñu dal bon am na sax ñeneen ñu bokk ak Assane Diouf ñoo xam ne daana daanaka dal nañ fi sàmm ko yu baax baax. mais ñooñu dul sa adversaire waaw Moustapha Diakhaté xam Moustapha Diakhaté moom kuy topp ay waxam sax. waaw sama nijaay nag imaam wax ci ndànk de. non Moustapha Diakhaté dafa am problème. man moom Moustapha Diakhaté ba ma déggee mu xas yaayu yonent bi laa pare ci moom. Hmm. man fi mu ne journaliste yi nga xam ne ñoo koy invité. non man dama leen a mere man booba laa gëj diglu déglu Moustapha Diakhaté fu ma ne nii yem ci vidéo am zappé ko parce que man mënu ma gëm nit ku saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais di ko jox ay plateau ngay wax Moustapha Diakhaté luñ na wax na ko ci àddina ku mu naqareeti yow doo nit parce que ku mën a wax lii yonent bi yow loo waxati nit waratu ko saf moo tax kooku du ku ñuy jox micro muy wax man bi mu ci waxee dama ni kii jarul sax ñu koy tontu parce que mag mu alku la d'accord kooku jarul déglu macha allah mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf imam kon euh, mi ngi noonu danañ ci euh, ñëwaat xool ndax Thierno Alassane Sall moom wax est-ce que dina ko voté lu tax bu ko voté wul la xew lu ne ci ginnaaw loolu itamit ay mbir la daañu ci ñëw mm-hmm. sama ndijaay ngi noonu kii di ko illustré waaye ak lu mu ci mën a doon daal imam jéggal leen ko ndax yéen ay jéggalaakoon ngeen <laughs> euh, te itamit yéen da ngeen ni da ngeen ni da ngeen ni xëcc loolu dëgg nit ku réer sama ndijaay nag dama gëm ni dafa réer kon nag euh, daawa leen ko ngeen delloosi ko waaye bu leen ko gedd waaw <laughs> ah, yaa ngi tuddaat baatu daawa de ah. xam nga keroog yaa ne ma woon moytu leen daawa <laughs> comme nee nañ gars yi dañuy tere daawa uh-huh. waaw Moustapha moom jar naa daawa waaw vraiment man bëgguma ngeen sànni ko daal Moustapha jar na daawa mais kooku kenn mënu ko delloosi dëgër na bopp nag mais kenn mënu ko delloosi waaw dëgër na bopp lool eh, yow ku mën dévier waaw xalif général des mourides vraiment kan moo la mën a yow Moustapha Diakhaté yaa ko gisati muy dem kër Serigne si du màggal du ziar du len du dem fenn nga gis Moustapha Diakhaté ñu ma nga ne di ziar sëriñ bi. doo ko gis déedéet abadan mosuma koo gis ci benn kër euh, kilifa diine voilà xëy na nag ku yebu di ko ñaanal yàlla mm-hmm. parce que loolu njëkkul ci moom mm. lim ci mujj mën na am cat la li nga ci mm-hmm. wax ñu nangu ko bu wér mooy yàlla na ko yàlla soppi mais man jàpp naa ne at yii mu am ak lancé bii mu bëgg a jël du yoonam du yoonam mooy magum jëm romb juróom benn fukki at mm-hmm. te yow lépp luñ ne lu baax la contraire bi ngay def vraiment c'est grave ku baax nga nga contre vraiment loolu moom cat dëgg la. yàlla na ko ci yàlla génne. amiin <laughs> incha allah amiin amiin